alaykum wa rahmatullah ma ngi nuy bokk jullit yi ah di jul bi ma santee yalla ba nopi jul ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal sëñ Muntaxa yalla na fi yag ci wër di nuy ñepp nak bép jullit góor muy jigen di len nuyu a ah, di len jox waccu way di nuyu señ Thierno mbay mi nga xam ni mom lañ fekk ci fi ci Kéré mbay tay wa señ Thierno wax deug yalla ñoo ngi kontaan si dalal bi ñu dalal fii sa màggal gi ah de xam na ne nag nit ku baax lan fekk si nit ku yiw lan fekk si nit ku am teraanga lan fekk si te réccuwun tamit liñ la doon xamee man wax dëgg yàlla li ma la doon xamee réccuwuma ko te li nga wax rek maanaam liggéey moo ñu boole danga doon as gor di liggéey ma doon as di liggéey ba liggéey xamale ñu waaye nag ba tey tamit wax dëgg yàlla maa ngi gën a sant yàlla tamit xam gi ma yàlla xamale yow sant naa ci yàlla bu baax a baax a baax réccuma ci dara ci ñaan nak ah ñew gi ñu ñew fi ren ci sa magalu mam gi ah, nga teral ñu fi ñang ñaan yalla di la fekk ay deweni dewen ci at mu ñew rek dak ma ca des ñogi ñaan yalla tim yalla yagal and bi gën ko rafetal ñoo ngi feddali suñu kóolëri ak yow bu baaxa baax di kontaan ci yow bu baax señ tierno jërëg gën jëf di nak ñi ma tim tamit sama natango yi ñu andal timit ma ngi kontaan ci ñom muy ajaam ben ciaw mi ak xadi caam di sama doom ajaam benn cawtim sama xarit di xool borom xool bu rafet ma ànd ak sama doom tamit dafay njaay sekki met ma fas yéene tamit bu déwénee bu bu ñu ñëw fii moom délégation la ñuy la lay àndal bu soobee yàlla xañ na dama ko waajut sax ba ñoom ñii rek laan leen nan leen dem àgg ca màggalu keere ga suñ cernu waaye su ma ko waxul ñëpp it war na ma ne ñëpp ay ñëw waaye nag ñoo ngi ñaan yàlla daal ñu fekkee déwén déwén dàq ren bu xam ne moom dañuy def ay kaar ñëw di fi yendu si may contane timit ci sama sering bima fi fekk bima sama gëna contane ndax dama fee gis sama xol gis fi sama xarit gis fi sama coloré muy sëñ cheikh Aliou Mbàkke loolu rek ci la gëna bëggé bégee gëna la japp dal ndax sama xarit bima fi fekk di sama sering muy sëñ cheikh Aliou ma ngi bëggé bu baax jërë gën jëf bi di le jox sa yéeguwaay bu baax mbay di ñaanal cheikh Dinyana mu fi di ñaanal sëriñ Moda bi mi nga xam ne mooy xelifab Cheikh Abdoulaye borom dër bi mooy mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal mboolem jullit ak njabootu sëriñ Fallou gépp di wax ne soxna Walimata Seck mi nga xam ne moo ñu indi tey fii moom dama koy delloo sant di ko delloo ngërëm ndax ki nga xam ne jóg na xelam nekk ci yow mën la ñëwal ñu ànd kooku amatoo fayam dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax lii rek ci lay dox développement rek ci lay dox. ak dimbale nit ñi ak jàppale nit ñi ak bëgg fu mu nekk doomu aadama yi nekk ci wetam kon nag yàlla na ko yàlla Serigne Touba jàppale may ko doole musal ko ci cat may ko wërsëg woo xam ne dina ci mën a dimbale doomu aadama sëñ bi mbay yaaram ñu ngi lay ñaan nga ñaanal la ñu soxna Walimatu ñaanal ñu lu mu man ren bu déwee ne mu man ko ndax lu mu man ren rek bu déwee ne bu ko mënee rek jigéen ñëpp nañ ko man ndax développement yi ñu defal dañu jëkkati xaalis diñu ko lebal di jëkkati xaalis diñu ko jox ñu liggéey di ñëw di delloo si wax dëgg yàlla yàgg nañ ko bëgg te mosuñu ko am ci moom mbir lañ ko amee te bi bëggul dara mu kenn kon nag bëgg nañ nga ñaanal lañu ko bu ñuy ñëwaat fii déwén ay kaar la ñuy def def suñuy délégation def suñuy hôtesse ñëw fekk si la ndax yow mbay jar nga ko tey laa la mas a gis de waaye xam naa nit ku baax nga yàlla na la yàlla ak Serigne Touba jàppale may la gudd fan gu ànd ak wér ak mboolem julli ci barke Seexul Xadim ajaratu Walimat Sekk mi ndax moom yaakaar naa bu nu amoon fukk ci moom ñun du namm dara ndax seere si yow mottali nga ko ndax ñun danoo jàpp dee ni ñun dong ñoo ko moom waaye bokk nañ ko ñëpp ndax bi nu dikkee tey yow dangaa firnde ni ci liggéey ngeen xamante ci dëggu ngeen xamante ci ne ci terrain bi ngeen xamante loolu moom la ñu won ba nu ànd ak ñun te seen yéene fu mu waxee rek danañ suul kon nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla kattanal ba lépp lu mébét rek euh, ak ñun ñii ak àdduna ak bëgg a jàppale doomu aadama rek suñ borom yàlla jàppale ko ba mu teg ci loolu di la ñaanal yow dem ba ñun bu ñu ñew fi ni kenn duñu fi man bu ñu xeye dañuy ñew fasiyene ne ci wañu ne ci yépp and ko yow ba mu jeex ndax wali mi jaral nañ ko yu mi jaral ngam kon nak ñoo lay ñaanal yalna yeggalé sa sago ci barke Serigne Touba ta nga doli no ñaanal bu baax rawati na nak soxna wali ma sëñ bu ne da ngeen di tassé rek yaakar na mo pour ngeen xamanté nit bala nga koy xam deug deug da ngay dem ba fam mu té soxna wali wax de yalla nit ko baaxa baaxa baax la loolu rek lan xam ci moom nangoo liggéey jàpp ak njàmburam du tooñ te it wax di yàlla ku ko tooñ it mën na laa jégal ndax ku du tooñ moom doo topp ak tooñ wax di yàlla nit ku baax a baax a baax li nu xamale nag lool waxoon naa ko sànq liggéey rek moo ñu xamale te wax di yàlla nit bu nangoo liggéey lu bare bare bari moom yàlla mën na ko cee musal ndax bu fekkee ne nu nga liggéey di nga sukk foo xam ne nii waroo faa sukk di sepp say wom fo xam waro ko faasu ndax lool lepp li koy waral da ngay bëggal nit ki lo xam ni wor na la li moy tax nungu la ko defal te bu boba nak doto amati dignité bi nga war am te soxna wali mom wax di nekul ci lool liggey rek la xam ci mom japp ak jambaram mu kérok bima démé demee këram li ma wax moy jigéen ñi lu nu soxla fim mu toll nii ñoom ñoo ñom ci seen bop lañ koy jël lool nak wax de yàlla lool bu ko jamono ñepp defoon kenn benn jigéen doto am problème te góor ñi yor kër yi duñ am problème ndax bu fekkee ne li ngay soxla am na ci kër gi foo koy wutee ji ca marché ba di nga leb dina nëbb toog a def dara kon kay da ngay doolee sant yàlla ñun daal ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax lii ngeen xam ne moom ngeen bëgg ba tax ngeen yëkkati seen i tànk ñëw ci ñun ñoo ngi leen di ñaanal yàlla suñu taa defal leen ci lu kawe seen jot wax de yàlla lebel ngeen ñu loo xam ne it yàlla nañ leen ko mën a fay la nuy wax ndax wax dëgg yàlla temps dafa seer nit ki benn minute rek la ko mayee ci temps wax de yàlla lebal na la loo xam ne nii lu rëy rëy la te wax de yàlla yàgg ngeen fi ba ngeen ñëwee ba léegi wax de yàlla yéen a ngi toog di waxtaan di ree te wax de yàlla ñu ci bari tey lan mas a gise xam nga loolu wax de yàlla ubbeeku la te wax de yàlla lii moo ñu war ñun ñëpp ndax ñun ñëpp benn lan aadama ak awa ñoo fi nekkoon kon ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kenn gënul kenn li ñuy gënante nga xam ne moom la yàlla taggee rasulullah mooy xol rek ku gën xol yaa ñëpp bu fekkee ne man dañuy sukk ci sama kanamat te sama xol kiiwut doonu ma dara ñi doonul leneen ñoo may gën a baax kon nag nan fas yéene raxas sunu xol fas yéene booloo nekk benn wax dëgg xam naa nag li ci des moom dañ koy bàyyi soxna walli rek fu mu jëm daal foofu lañ koy jàppale muy wàllu réew mi réew mi li nga xam ne nii mooy politique bi daal fu mu ci jëm foofu lañ koy jàppale incha allah bu ngeen ci àggee dinañ leen dalal fii incha allah waaw ñoo ngi jégalu bu baax a baax